amna ñu mëne lutax ngay comparer Mam diara ak Astar parce que Astar mok Mam diara la ñu choisiroon pour ñu dem Now United mais Mam diara la ñu jël est-ce que Mam diara mo dakk way as Astar déedéet dakk ko way mais style mam diara le gars yi soxla woon xam nga parce que Mam diara comme ñu la ko waxee elle est elle est elle est mince elle est élancée ba pare elle a la peau noire té dañu xamné ne she is more marketable dañu xamné mom mom lañu gëna mëna jaay que. Euh, nu mu tuddati Astar mais nag dama yaakaar ne Astar war na mën a remplacer Mame Diarra fële Now United pour loolu nag am il faut moom lii moo tax gis nga foo da nga war a am am ay agent yu baax waaw ndax fi mu nekk Astar bu fekkoon dafa am agent yu baax dinañ dem ci Bouba Ndour comme Bouba Ndour moom moo yoroon euh, euh, Petit Gallé seen Petit Gallé ak Ngoné Ndour ñu fexe ñu am benn link foofu xam nga ñu fexe ñu am benn link foofu ñu jéem a xool ndax mën na ko remplacer comme benn sénégalaise la Mame Diarra une sénégalaise mu ñëw mu toj Now United té Astar chance bi mu am elle parle bien l'anglais elle est très belle c'est une sénégalaise aussi ba en plus elle sait danser elle sait chanter elle a une très belle voix elle ressemble à Beyoncé mais lool ñom ñoko waron dox ñom Boubou Ndour ñoko waron dox xam nga mais même si c'est loolu loolu tax nak nga may gis may may wax Mame Diarra di Astar parce que ñom ñaar sen destin Now United daf ci am

nee ko dañ ko bëgg yóbbu ci benn benn sway house foofu ay boy nekk ay boy yoo xam ne ci tiktok bi la ñu nekk ay ay en général te ñu am na ci ñoo xam ne nag dañuy def drogue léegi laa foofu boo fa demee ñoom tiktok bi ñoom ñëpp ay célébrité lañu foofu Mame Diarra bu fa demee dina gën a siiw mën na fa dem def li muy def mais en tout cas ñun li ñu koy wax rek na def très attention mi ngi ci yoon bu baax xam nga euh, mi ngi Hollywood vraiment kii kii elle est très modeste Mame Diarra li mu am bu ko Sénégal yu bëri amoon Kon balegi nyingi degi, yenen kwey degi, Senego, Seneweb, ti sidi Dakar Buzz, ti sidi yep. Me gis nga mam diya re, Hollywood le yi dundu. Fimi yi dundu, milyarderi nyon fwa neke. Kon chalebi, nen kon nyanan, te mou fateli nek bopom ne, Atensyon, boumyakab ne, eksine, boumyakab ne, reyusine. Ndak nga bayi, Now United, diyom. Men, nyon, nyon kwey nyanan. Brésil dégg naa am na fa benn fans base waa Brésil dañ ko bëgg lool ndax li mu nekk nit ku ñuul Sénégal tamit Afrique ñun ñoo ko war jàppale jaajëf gars yi loolu laa leen indiloon ci maam Diarra Now United. Oh, oh, oh. Paramare number one. is number one. Tabadal is one. Ta mission is done. Paramare number one. is number one. Tabadal is one.